président bi di arrogant di wax wax ju ko neexal dem ba naan ay dangeen may neexal ak wala allo sëñ bi waaw waaw ma ne ndax euh, du sax du sax dialogue bi maanaam dialogue dialogue politique bi ñu woote woon fanweeri fan ak benn ci weeru mai ak kàddu yi nga xamante hmm. ni président jot na ko faa wax daanaka sax euh, moo gën a merloo ndaw ñi ndax su fekkee Euh, ci mbiri mandat euh, moom mu ne mandat dañ koy ñaan dañ ko koy ñaan ngir moom mu bàyyi lii leen nag euh, ñu jàpp ne moom daanaka président dafa jàpp ne moom moom yëf yi te Sénégal moo ko fa teg du lii leen sax moo gën a merloo ñi nga xamante ñoo ni manifestant yi ma ni dem ñu wane ko allo def naa dégg question bi rek bu nga baal ma def allo allo waaw waaw mhm. yaa may dégg waaw maa lay dégg waaw ma ne est-ce que tamit du taxawaay bi nga xamante ne président keroog ni ki dialogue bi ba muy door. Euh, kaddu ya mu yëkkati kaddu ya mu yëkkati. Mhm. Euh, voilà la mu la mu wax naan mandat mbiri mandat daanaka su su ko sénégalais yu bëggee moom nañ koy ñaan mu daal di koy joxe. Euh, du li ko meree. xam nga loolu rek xam nga loolu rek gàcce la. Mhm. loolu gàcce la si si si ab dëkk boo xamante nee ñu république la nee nañu dëkk boo xamante ne démocratie parce que su demee ba président taxaw jàkkaarloo askan bi naan leen. su leen ma bëggee ñaan troisième mandat da ngeen may neexal. ci mhm. koo xamante ni moom moo waroon population bi di leen jaay benn projet boo xamante ni gëm loolu leen nit ni li ñu doon xeex 2012 moo waral man ne damay def benn référendum boo xam ne nit mënu fee amal troisième mandat. Mhm. donte Abdoulaye Wade defoon na ko ba pare. nga ñëw mhm. taxawaat am audace jàkkaarloo ay kilifa diine ay chef d'opposition ak société civile. ak ñi nga xamante ni yaa ngi bokk ak ñoom benn majorité. taxaw ne da ngeen may neexal si ak teraanga sinon. Mm-hmm. benn waar. Ah, ah loolu loolu loolu moom loolu moom daanaka ñu ci bari sax ñaawlu nañ ah, ñaawlu nañ kàddu yoon ndax su fekkee mm-hmm. ay kilifa te comme ni ñuy wax rek Sénégal réewum démocratie donc ñii ñooy fal ñooy folli su fekkee yow dañ la dañ jox possibilité nga nekk njiiti réew ndax itam soo jàkkaarloog sa askan wala ngay yëkkati kàddu ah, ngir rek dalal askan wi est-ce que tamit duñ ko gën a rek def ci anam yi nga xamante ne askan wi ñoom dañ ci gën a gis seen bopp. Mm-hmm. waaye yëpp su fekkee dañu tëkkanteeg askan wi itam. parce que instant bi dem nañ ba fi nga xam police bi mer lay mm-hmm. demee. Mm-hmm. moom président bi mer lay demee. Mm-hmm. premier ministre am mer lay demee. Ah. opposition bi lay demee population bi di demee mer. loolu mbaa du ëppam ñëpp suñu demee mer. ma ne ñëpp suñu demee ci mer mbaa loolu du ëpp. loolu moo waral nag ñu commencé di taal institution yi. mosul am Sénégal ñu dem di taal ay faculté droit. di salle test bi nga xam ne salle les journalistes di jànge ñuy gazé journalistes yi parce que in bëgg a yóbbu Sénégal te àgg nañu ko mhm. daanaka. Mhm. d'accord te li nga xamante ni lii lañ bëgg a Sénégal. du mhm. jàmm du salaam. fakkasal benn opposant rek jarul lii. sa nguur dëgër bopp. te gis nañ Macky Sall jamono yu ñu toll nii man de jàpp ma ni jàpp ma ni instant bii nii. psychologiquement mën na mën na gérer dëkk bi. d'accord. faculté mentale Macky Sall ak faculté mentale premier ministre pour l'instant yi gëm naa ni am na rupture gëmuma ni mën nañ ci dëkk bi loolu moom gëmatuma ko. Mhm. yàlla nañu yàlla musal nag ci ab euh, safaan ak leneen. waaye mhm. Sénégal fi ñu ko bëgg a yóbbu nii. non du jàmm baaxul. amiin amiin Sénégal bi ñu xam jàmm la. Sénégal bi ñu xam. kalante la kaf seen biir mais suñ demee mm-hmm. buñ ci bëgg a dugal ay waaso ak ay xeet effectivement non wax dëgg yàlla war nañ xoolaat war nañ xoolaat politique jaru ko dara jaru ko mm-hmm. merci merci beaucoup merci dialogue tey suba nga tëj opposition dialogue mm-hmm. tey suba nga taal dëkk bi mais loolu tamit est que dialogue bi ak njëriñ wala kaddu Cheikh Bamba bi amul njariñ wala kaddu Khalifa Sall bi amul njëriñ wala kaddu Euh, Cheikh Tidiane Al Amin Ba la mu wax jàkkaarloo Macky Sall loolu amul njariñ kon xanaa kaddu am na Khalifa bi wala kàddu keneen kasa doon neexal muy ree xanaa kàddu yooyu ñoo ko ñor moom. dëkk bi de doy na waar. merci merci beaucoup merci merci beaucoup ñoo ngi lay ñoo ngi lay jaajëfal xalaat. maa ngi na am na solo merci beaucoup jaajëf. Euh, Fallou Gueye ñoo ngi lay nuyu Marème Amar itam euh, ñoo ngi koy nuyu di ko di ko jaajëfal euh, ki nga xamante ne mooy Mala Mara ñoo ngi koy nuyu Mansour Gueye ñoo ngi koy ñoo ngi koy nuyu di nuyu képp ki nga xamante itam yaa ngi ñuy seetaan Gilbert fàttewuma la laay laay lëy wala laay laay maa ngi lay maa ngi lay nuyu Fred Fred am am ndel xeet am ndel itam maa ngi koy euh, nuyu bu baax a baax a baax a baax. ñëpp ñi nga xamante ne ci waxtu wi ñoom ñooy seetaan ñu bàyyi xel vraiment di leen kontaan ci seen i message topp ngeen di topp télé Sénégal di euh, euh, télé askan wi Aziz bu Mauritanie itam fàttewuma la maa ngi lay nuyu di la di la di la jaajëfal bu bu baax a baax a baax a baax round time maa ngi lay nuyu Ndeye Samb Maguette Ndiaye Cheikh Mbacke Fall. ak kan ndongo Samb ndongo Samb ñu ngi lay nuyu moom nee na euh, Sonko ngo ngi kër góor gi ah, ah vraiment li li itam euh, vraiment ñun ñi jaaxal nañu parce que euh, silence rajo Sonko après sa condamnation itam loolu ça pose problème parce que amoon na habitude bu procès amee veille bi wala lendemain bi daanaka wala sax su verdict génnee moom mu joxe ca xalaatam waaye itam jamono ji euh, dégguñu Ousmane ko wax ay avocat itam waxuñu euh, ci yan condition la nekk ndax ñoom keroog bañ ko demee seeti daanaka dañ leen a gazé ay grenade lacrymogène Sonko fa mu nekk am nañ njortu ne moo ngi këram sa ci kër góor gi waaye nag euh, mbir mi dese nañoo leer donc xanaa ñu xaar rek taaxirlu ndax ba léegi dégg dégguñu benn mandat d'arrêt bi nga xamante ne nañ ko teg nañ ko ci ndoddam donc nañ xaar rek ba xam taxawaay wi lan lay daal di nekk ñu jël mbokk mi nekk ci ligne def. allo allo mbokk moomu mbokk moomu rëcc na di xaar keneen ci 77 810 90 90 Oscar Sierra maa ngi lay jaajëfal sunu xarit boobu depuis depuis euh, Mali ñoo ngi koy nuyu Gilbert itam fàttewuma la Magay euh, Magay Ndoy itam Mohamed Thiam Ibrahima Sané Cheikh Mbacke Fall. yéen ñëpp yéen ñu ñuy seetaan yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen di leen eh, jaajëfal boobu baax a baax a baax a baax baax su nekkee Oscar am nga am nga am nga am nga ay nouvelle ci sa turandoo nga wax ñu eh, ndax jamono ji Mbacke eh, Mbacke moom daanaka yëf yi jaaxal na ko lool fi nga xamante ne foofu la Ousmane Sonko war a nekk ndax depuis démb ba léegi kenn amut ay xibaar ci moom ndax jàppuñu ko ah ba léegi on ne kon ko ba léegi on ne sait pas ndax dégguñu benn mandat d'arrêt bi nga xamante ne eh, jib na ci kaw ginnaaw bi nga xamante ne ñu yore wàllum yoon ak yoonal condamné nañ ko ci ñaari at yi nga xamante ne da ko war a eh, tëdd li xew démb nag ci biir réew mi daanaka moom la ñuy waxtaane juróom-ñeenti nit ñàkk seen bakkan selon les chiffres officiels yi nga xamante ne eh, ministère bi gàlloog biir réew mi joxe na ko di Antoine Diome la xewoon mars 2021 ndax jëmuñu ceem ak waa itam dëkk bi fi mu toll ñu ne bëri nañ ay ressources ndax yee fi fitna lu lu gën la diine la ñuy waxtaane ku ci amee xalaat rek da ngay def 77 810 90 90 salaamaaleykum allo allo allo waaw kooku kooku kooku rëcc na kooku rëcc na je pense que gars yi li xewoon démb ma ngi commencé xewaat maanaam euh, connexion internet bi ñuy tàmbalee saboté ak réseau téléphonique yi nga xamante ne gars yi ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy gàntal di ci di ci wuti pexe ndax démb ñi nga xamante ne ñooy ministre bi gàlloog bi réew mi wax na ko ne ñoom ñoom ñoo wuti pexe rek ngir dakkantal lépp li nga xamante ne nit ñi ñoo ngi koy jëfandikoo jëmee ci wàllum woote ko wuyu wala sax di ci connecté ci wàllum internet lu ca mel ni Facebook WhatsApp YouTube Euh, woote Twitter fi nga xamante ne fa la ñuy jàllale information yi ñoom ñu ne ñoom ñoo wut seen i pexe ngir gàlla gàllankoor li mel ndax jàpp nañu ne nit ñi dañ fay jafandu rek ngir wane euh, ay euh, vidéo ak image yi nga xamante ne xiirtal nit ñi ci wàllum xeex ak violence ñun nag ñu jàpp ne lii li nag xëy na moom xalaatam na waaye nag du li ni mel ndax su nekkee ñun ñi nga xam ne ñooy tas xibaar ci lañuy ñuy liggéey di won askan wi li nga xamante ne moom moo xew ci biir réew mi ndax su fekkee ne yow da teg akub jaase ci bopp média bépp bi nga xamante ne wane nga image yi ni mel wala fa jëri ni ki dem ba ñu commencé si ngoon rek ñu coupé seen signal te euh, fekk ñoom émission rek lañu doon def ñu coupé seen i signal euh, yenn télé yi kenn sañul wone image manifestation yi euh, mais ñoom rajo yi rek yenn ci rajo yi sax la ñu wax ne ñoom ñoo doon ñoom ñoo doon génn si mbedd yi di xool lan moo xew ci tali beeg dëkk bi donc su fekkee ne yow da ngay tere ki wane ay ay xeexoo te jamono yi 2011 2012 ñoo ngi fàttaliku donte ay gënoon nañ nekk ndaw waaye amoon nañ at ngir woote donc euh, la xewoon ci ci jamono jox ñun ñëpp seetaan nañ ko ci télé yi donc lu tax ñu ñëw ci waxtu ñu toll ñu ne euh, télé yi amuñu droit wane li ne mel itam lii lee euh, jaaxal nanu nanu ah, su fekkee ne tamit ndaw yi am nañ leen metti bay xeex Euh, askan wi itam war nañ war nañ xam lan moo tax ndaw yi di xeex ndax politique la wala ndax ñoom itam seen nekkin ci dëkk bi moo leen metti loolu itam faw ñu faw ñu taxaw rek def ci taxaw seetlu waaye nag mënoo mënoo nekk kilifa am say euh, am say matukaay am sa doole rek nga ne euh, yéen daal li ngeen def daal man jàpp naa ne daal day xiirtal nit ñi ci wàllum xeex donc faw rek ñu gantal seen i pexe lii la itam ñaawlu nañ ko bu baax a baax askan wi askanu Sénégal yëpp la ñuy wax ak ñu nekk bitim réew bëgg xam li xew Sénégal euh, war nañ ko xam itam donc ñoom suñu bañ loolu am rek xam nañ fi ñu xam ne foofu la ñu war a jaar maanaam euh, waxtaan ak askan wi teg pexe yi nga xamante ni itam nit ñi dinañ bàyyi xeex wi jublu ci leneen voilà lii leen nag suñu xalaatu bopp la su nekkee am na keneen ko amee xalaat ci li xew ci réew mi mën nga def 77 810 90 90 salaamaaleykum allo mbokk mi na ngeen def ah dafa mel ni jafe-jafe yi nag euh, door na waaye léegi ba léegi mën ngeen insister ci 77 810 90 90 salaamaaleykum. allo. allo. allo Jérôme. oui. si client man la. Gilbert nanga def. lu bees na ko mu. yaa ngi si jàmm. ça va Régis baal ma yokkal ma tuuti retour bi dafa xaw faible. Gilbert je vous entends à peine Là, tu la là? Oui, c'est bon. ok maa ngi nuyu internautes yëpp. Mhm. ñoom Pathé Wele Mansour Oscar internet yëpp ñu nekk ci ligne mhm. mais Jérôme xam nga euh, li ñuy ñuy wax que li egg fii li leen doon wax. waa yaa yàgg na yàgg nañu prévenir. Mhm. waaw parce que c'est pas normal que Gilbert Gilbert su ma Gilbert su ma mayee man laaj la. parce que xam nga mhm. dañ ne euh, gis nga nit mhm. dara su la dalee benn yoon mhm. euh, nga gis ko wala nga ñàkk gisoo ko woon ba mu lay dal waaye dal na la benn yoon ndax waroo mën na moytu def lépp ba loolu bañ la dalaat waaw nit laa la wax ne nit njaay waxuma la sax nguur wala ñi nga xamante ne ay kilifa lañ ci ci biir réew mi nit simple yow nit ñu def la benn benn mbir mu metti la yow daanaka balaa loole di la dala ndax doo waajal sa bopp. non si mais c'est xam comme ni ñuy waxante à un moment donné soo jëlee comme li actuelle si nii ñu bëri dañuy teg ne. Mhm. parce que euh, problème Sonko c'est vrai mais c'est que Sonko moom dong li mu war a def. Mhm. jarutul sa muy wax moom pare na ci moom mën na noppi. c'est que ñun ak jeunes yi état kenn du xeex moom wax loolu loolu moom dëgg la kenn du xeex ak moom. Mm-hmm. mais état dafa fu muy toll. Mm-hmm. ak nu mu munti rëy. Mm-hmm. ñun kenn gën ñu nekkuñu ñu républicain. lii lu ñuy ne lu muy raam ci ñàkk bi la jëm. lii dictature la. bëgguñu ko dégg parce que ñun Sénégal xamuñu lii. il faut mu métti ci ñëpp. xam naqari nañu ñun trop. c'est vrai que man du moo xam. du ñu ne affaire violence. lu ñuy yàq ni yëpp métti na lool. Mm-hmm. mais da ngay xool ñay manifester munatoo wax léegi ba dañuy téye di tëj ñi chaîne di couper ñi bi internet te ñu ngi deux mille vingt mm-hmm. ñu ngi mel ni comme buñ doon juddu ay soixante dix huit quatre vingt quatre vingt dix <laughs> ñu ne non di répercussions mais c'est tout à fait normal li yëpp waxoon nañ ko bañ ko doon wax début bi ñun ñëpp ne non non Sonko yow nga condamné nit tii nit ki ne du man nit ki wax na la lépp ñëpp waxoon nañu lépp mais tey xoolal léegi luñ ko condamné soi-disant corruption de la jeunesse man d'après sama gis-gis sama xam-xam corruption de la jeunesse mooy ma jox la dara nga dem meeting te dafoo enquête defoo dara léegi on a perdu pendant plus de deux ans nit yi dee ci léegi ñu ñëw ñu ñuy ne xam nga même suñuy tourné au tourné ñu commencé tourné Adji Sarr fu ñu fekk mais ñi nekk ci ligne bi yëpp te suñu nee mhm. ñi nekk ci ligne bi dañuy commencé remonté commandement bi ba justice bi mhm. pourtant prévenir nañu bële man de xaw ma kan pour lii mën arrêté du négocier du wax ku nekk xam nga li ngay def boo teew ñu violence dara mhm. mais lii il faut mu arrêté ken du xeex ak sa peuple effectivement dañuy wax ñun ñoo nekk kenn mënul xeex ak sa peuple. Mhm. mais pour mu métti su méttee ci ñëpp. am lii nag su jàllee ma ñàkk ko fi nii nii nii nii ñu ñëwee ñu ne jàll ñoom lool la ñu calculer ñoom ba tey dañoo calculer ni pendant deux trois jours dinañu yàq après ñu def nii ñu mais li ñuy yàq Gilbert suñ ko xaymee ci wàllum koppar li ñuy yàq bëri na bu ñu fàtte ne Sénégal jamono ji nous sommes un pays pauvre ah nous sommes un pauvre daanaka certes am nañ ay ressources mais ressources yi daanaka jëriñu ñu dara su nekkee ne courant bi pour vous dire vrai courant bi yokk nañ ko ci lu kay xam xamul courant bi léegi euh, ñi yor compteur yu woyofal yi ñoom xam nañ ci dara danga naan danga naan jënd 6000 euh, wala 7000. Mm-hmm. da ngay am euh, weer da nga koy jeexal waaye léegi sax daanaka soo defee 15 jours yëf ya jeexal la nga daan am ci wàllum ci wàllum courant soo jëndatee som boobu mm-hmm. dootoo ko am donc ñoo ngi yokk yëf yi ndànk-ndànk te lii lépp nag daanaka yàq te ñuy def ci manifestation yi ñoo ko waral donc est-ce que tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi ñoom xeexoo bi nga xamante ne ñoo ngi koy takk der ñoo koy def ak population bi ndax mënuñu de temps sans pour autant utiliser li nga xamante ne moo di la force ndax suñu utiliser la force itam ndaw ñi ñoom ils vont ils vont ils vont ils vont quand même ils vont ils vont rétorquer te ñoom ci yàq euh, piller ak euh, ak salfaañe alal jàmbur la ñuy def. xam waxoon nañ lañ ko mais c'est que état Sénégal dafa dëgër bopp gis na pour mu ñem dinañ dem ba benn instant ñu ne waaw nañu négocier mais gis na fii dafa nekk xam def nañu condamnation bi. Mhm. nañ ko génnee. yow nit ki ñu ne la deful deful léegi ñu ñëw condamné ko deux ans après ñu ne ñu ñun ñooy daaneel république man xaw ma kan de waxuma kenn. Mhm. te Sonko Sonko waxu ko kenn. Mhm. mais dafa am loo xam ne pour du ñu gën a gore. Mhm. il faut ñu delloo ko lépp gis nga même comme li nga wax nii ah ñu génnee ñoom mën nañ ko arrêté ñoo ko déclenché mën nañ ko arrêté. mais problème bi lan la ñoom dañu ne. toujours force force restera à la loi mais c'est qui la loi. mais dans ce cas mm-hmm. su fekkee ne askan wi génn na xeex. su nekkee Ousmane Sonko mm-hmm. la ñuy xeexal. mais est-ce que la loi c'est qui alors. la loi c'est le peuple ou ou les institutions qui qui sont dans le pays. non la loi c'est le peuple. c'est le peuple qui gouverne. munoo doon di gouverner ce peuple di kii ngeen da ngay xeex moom di koy rey. gis nga ñuy toog di wax nii. parce que seen ceeb dañoo am lu ñuy jox. Mm-hmm. ñun dañuy comme dañu ne ñun ñëpp ah mais lu si ñëpp su doon man dong ça me dérange parce que man nekkuma nekkuma foofu sur place mais damay xalaat koo xam ne mënul koo xam ne tey suñu tëjee dina métti ci moom. te mm-hmm. suñu commencé dem bu muy métti ci nguur bi. Mm-hmm. xam ñu métti ci nguur bi ñu am ñoo xam ne dañuy ragal wax mais en un moment donné mënuloo mënuloo nekk suñu wàccee affaire ci base à base ñuy ne waa affaire bi affaire bi day tourner toujours ci benn clan. dañoo toll foo xam ne war na ñëpp le minimum des choses. Mhm. mooy lekk nga naan soo feebaree am foo faju mhm. ah ba pare nga am pour mu jàngal. ubbi mhm. xel yi. mais chaque fois ñu dañoo tàmm politique di négocier wax wax wax wax ñu la joxe buuxal benn un million benn dix mille. benn dix mille te loolu yëpp suñu xaalis la. ñun bañ nañ ko ba dañ ko ne dañ leen di fay. doo doo am problème courant amul problème loyer suñu xaalis lañ lay jox mhm. millions yi ngay joxe ci biti ñu xaalis la en fait mhm. milliards yi ñuy def yëpp suñu xaalis la dañ la ne nga doxalal waxuñu la nga def lépp mais nga def minimum léegi ñu am kenn mais soo xoolee ba tey soo xoolee ba tey ñu dem ci dialogue bi yow nga toog ne man président mat ñu tëjee Gilbert ñu tëjee foofu ndax ñi bëgg bokk ci waxtaan wi bari nañu. waaw ñu bëgg a moom accordé naa la temps bu bari. ok en tout cas merci beaucoup waay merci mhm. beaucoup. merci ok surtout du courage à merci di ko jaajëfal bu baax baax merci merci euh, di jaajëfal itam euh, Serigne euh, Serigne Mbacke ak Gora Sow Idrissa Thior fàttewuma la Babs ak Marème Kane Cheikh Maguette Seck Bamba Mbacke Dame Seck ak Mansour Gaye ñun ñëpp ñi nga xam ne yéen participer à travers le chat en direct noonu leen nuyu di leen jaajëfal salaamaaleykum. maaleykum salaam wa mbokk mi na ngeen def. ana waa kër gi na ngeen def. ñoo ngi sant yàlla foo ñuy woowee waxtu ñu toll. Touba Mbacke. naka waa Touba. ñu yàlla mbaa foofu YouTube ak WhatsApp ak yi ni mel ñoo ngi dox. déedéet fii kay dara doxu bi ah doy na waar de. waaw dara doxu fi de waaye daal xam na ci am na ci ñenn ñenn ñu am ci application boobu ñu naan xaw ma. la waaye ci la ñuy jaar. ah waaw waaw xam nga rek xam nga pexe technologie moom mënuñu ganta lépp. dëgg la kay. aca bismillah ci waxtaan wi. waaw dama leen di déglu booba léegi. Mhm. ngeen waxtaan waxtaanee lu am solo. Mhm. duma ma faral sax di woote ci ay télé wala ay séddu waaye dama léegi ngeen mel ne ku xaw a équilibré daal ci mbir mi. Mhm. ndax ab sénégalais noonu la war a mel. waaye li am ci réew mi naqari na ñëpp te it ñu ngi koy ñaawlu baax a baax. te dara waralu ko lu Euh, dictateur mhm. ndax euh, ñiy woote sax di dal ci kaw Ousmane Sonko ak ñiy manifesté wu kenn ku ci nekk na nga na nga defoon Ousmane Sonko sa baay wala nga defoon ne sa doom la mhm. wala nga defoon ko ne sa mbokk la mhm. fam lay toll na nga jàpp ni foofu la tolloo Sénégalais yëpp kon ñu ngi koy ñaaw lu baax a baax ndax lii naan ak yàq am na waaye yàq doomu aadama moo gën a moo gën a métti moo gën a ñaaw mhm. te noonu lañ ko def xaawis turaam jaay ko doole toroxalu njabootam loolu metti la mhm. président Macky Sall na na xooloon fii Ousmane Sonko nekk moom mu nekkoon fa mhm. wala Amadou Sall nekk fa wala ñoom ñooñu kenn nekkoon fa Mhm. su boobaa bu su dana dana soxla sénégalais yi. Mhm. kon ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax di ko méttatlu ci suñu xol. Mhm. lépp loo xamante ni ñu ngi koy def ci méttatlu suñ ko mënoon wala noonu am kàttan gi dañ koy defee ne ko gone yi defee. waaye yàlla daa dogal mënuñu ko te fiñ nekk du du barab boobu. kon noo ngi ñaan suñ borom musal defal ko jàmm. suturaal ko. Mhm. di leen sant bu baax a baax di leen gërëm. merci ndax it wax dëgg yàlla waxtaanu am solo woo xamante ni eh, yéen a koy def. Mhm. Eh, ta te te askan wépp ñu ngi leen bàyyi xel. merci merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf.